bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu ngi nuyu bokki réew mi yëpp rawaat na bokki jullit yi rawaat na bokki taalibe yi ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha bin Cheikh Al Basir ngi nuyu ñëpp di leen sant leen gërëm ci jàll di leen sant ci cofeel gi ak kóllëre gi ñëpp am ci moom xam ne mi ngi leen koy nangul mi ngi leen koy jàppal di leen ko amal moom ak cofeel ku toll noonu ñëpp nee nag ginnaaw bu loolu wéyee mi nga xam ne waa réew mi ci tool yi dafa jot te bu ne waa réew mi xam ne waa réew mi yëpp ñoo koy déglu xam ne bu joxee ndigal li ñëpp koy jëfandikoo ndax ñëpp la amal jàmm ñu dëkk ci réew bi ñëpp ñu jullit ak ñu di jullit ak jullit yëpp rawatina taalibe yëpp ñu di ko déglu ci fu ñu mën nekk ci ak lu itte ñu mën a jiw ñu ñu ñu déglu fan yii rekk ñu baree ñu ngi woot di laaj ndax sëñ bi ci tool yi ci loolu nag moo tax sëñ bi ne mi ngi leen di wax ne kon dellu ci tool yi jot na kon nañ ñëpp waaj dellu ca nañ cee delloo nag moo di ànd ak xol bu laab ak yitte jum kawe passé bu mat ci fas yéene liggéey ngir yàlla liggéey ngir naatal réew mi kenn ku ne fas yéene tedd caadu ci sa njaboot ci biir lool itam ku ji dugg ku ne ngay tàmmali nga fas yéene ñaan ca su borom mel bu naat bu neex bu woom bu sedd bu ànd ak jàmm te bari lool te kenn ku ne nga nga muur lool maa ngi nag daa bëgg ñu tàmmali ko di wér yi ñëw doon ñaar fukki fan ak juróom-ñaar de ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weer wi ndax xëyte li ci ci sa la de ñaar fukki ak juróom-ñaar waaye déwéer ñaar fukki ak juróom-ñett la kon nañ ko jàpp war doon fukki fan ci weeru mars mooy déwéer ji rek mu na ko ñëppi baajal ku ko dégg ñu jot sa morom danañ ko yaatal bëgg ñëpp yëg ko danañ ko def ci rajo yi ak télé yi dañ ko def ci rajo Dakar waaye itam kenn ko nekk yi woo ca nekk na nga ko yéene sa morom koo dégg na nga jotali sa morom ndax dafa xañ jege dibéer ba dibéer boo so ku ko dégg te dafa yéene bay bu na nga dem sa tool gor ci ay gajj ci ay gajj taal ci ay sébb daf ko ab tàmbali te ñaan ci àggali ci alhamdulilah rabbil alamin ñëpp tàmbali ci bisimilah rabbil alamin àggali ci alhamdulilah rabbil alamin loolu la sëñ bi di ñaan ndax jàmm la yéen ñëpp ngi la bëgg ci réew mi jàmm la boog ci réew mi ba sa yoon kenn ku ne nga nekk nga am fa xéewal ba mën a jàmm yàlla mën a béy ci lu baax taalibe bi itam mi ngi leen di sant bu baax ndax gis na seen jëf yi ñu indi mu di leen ko defal ci liggéey bi sëriñ bi loolu itam xam na ne ñu am ay xéewal dana koy dana leen ci dimbali ci àggale yéen ja ndax bi su set nang mi nit ñëw indi ay tooli àll ci dëkk bañ dëkk kon tooli àll yi mi ngi dëkk yëpp kon tool yooyu mu ngi leen ci sant mi leen ci gërëm bëgg ñuy waajal ko te ci ñu xam ne lu ci jógee da koy dajal def ko ci liggéey bi sëriñ Tuubaa bi rek ndax liggéey bi sëriñ Tuubaa bañ a taxaw bañ a laal kon nag mi ngi sant ñëpp mi ngi loo ci loolu itam mi ngi nuyu bokki taalibe yi nga xam ne dañuy ñëw di ko soxla ma xam ne ni ñuy yor ay daayira gaaw dibéer altane la wax ne dana ko génn ndax daayira yi ñi mën a egsi egsi ndax bi ñuy wàcc Porokhane ba léegi gannul ci daayira yi waaye weeru koor yi nag dafa ñaanaat daayira yi mayaat ko ba ñu bëggee weesu ko ndax weeru koor neexut a booleeg liggéeyub waaye ñetti fan yi muy gaaw di moom may ko ñëpp dana génn ku génn ko ñëw danga ko gis noonu itam noonu fi nekkal ko fi ku ñëw dana taxaw ba nga mën a àgg ci moom incha allahu ndax mooy sunu liggéey kon noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp loolu mooy ndigal li koo dégg na nga ko déggal jottali sa ñu waajal tool yi ci tàmbali ko diwéer le vingt huit ci weeru chamban dix ci weeru mars ñu ñëpp tàmbali tool yi te siyaare yi itam ko mën a ñëw gaaw diwéer at nga ñëw ku daayira bu ko mënul nag bu dee yore daayira moom nga bàyyi ba koy jàll kilifa yi nga xam ne ñu koy soxla ci ay yitte lañ nag ñoom dana leen may ci koor gi ñu gis ko waaye nuñ ko cee gisee itam danañ ko waxaat mu leer ñëpp xam ko jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.